moom laa la wax li ma la wax leer la. d' accord seen candidat Bassirou Diomaye Faye eh, critique yi mi ngi pleuvoir dal ci kawam ba ci mujjee wax sax di Lat Diop dem na ba critiquer le physique de votre candidat propos yooyu mu jël tuutal nit la wala. non en fait loolu xamadi la mëtadi la at beew euh, xam nga baadoo la. Mm-hmm. su la wërsëg berte da jàpp ne. dalaa da nga ko mës a téye fekk dalaa berte te loola berte dalay mën mhm. ñu fiy taw fii di accuser di di xas basiru Diomaye ci ay physique yu bëri basiru moo leen gën a siggi Bassirou moo leen gën a siggi élancé mhm. gën leen nduru sénégalais parce que basiru Diomaye dafay dafay incarner l'identité sénégalaise mhm. ci jëmmam ak ci waxam ñu ko fi tudd ñëpp wax bi danee nañ ci communication dafa des trop nan la dese lan mooy wax mooy mu ubbi mu génnee wax ay moo nga dégg ko voilà man Bassirou daa ko ma ko wax Bassirou il parle normalement li mu wax di nga ko dégg seen un intellectuel te jàng na fi muy jàng fi mu bokk jàng foofu noonu enam du ñëpp fay dugg de du ñëpp fay génn tamit de am na fi ñoo xam ne c'est des grandes gueules yoo xam ne jéem nañ fa def te ils ont mm-hmm. te ñu ngi toog fi ñu leen di jàppee les meilleurs ceci les meilleurs cela c'est-à-dire nañuy poser le débat le vrai débat le vrai mooy Sénégal dafa toll ci benn tournant boo xamante ne ñi nga xam dañ fay yàgg toog di dundee alalu askan bi. Mhm. dañ fay gën di bëgg toog. et mhm. ça se comprend. Mhm. ñi nga xam ne dañoo bëgg maanaam changer la donne mooy ñun dañoo bëgg carrément dindi loolu fii nii. maintenant nag ay Bassirou Diomaye yi dafa mel ni dafa man du ma dugg ci loolu xamul tax. su ma ci doon tontu man maa leen gën a ñaaw wax maa leen gën a ñaaw làmmiñ maa leen ëpp inspiration ci loolu. mais nag ku am sa candidat bu jekk gérer ko. ñun am nañ suñu candidat moo ñu gënal moom lañ bëgg. fii deux choses fi am si candidat yi maanaam les deux favoris comme ni ñu ko waxee celui-là il garde la ligne mooy Bassirou Diomaye Faye l'autre il garde le linge muy Amadou Ba maintenant nag ñi may dégg xam nañ lu mu bëgg a wax d'accord euh, ku ci mel ni Idrissa Seck ak Amadou Ba bi nga tudd sànq ba ci Boubacar Camara nekk ñu nekk ay candidats à la présidentielle ñoom manque d'expérience bu Bassirou Diomaye Faye moom la ñuy joxoñ baaraam est-ce que tey soxla nañ bon peut-être expérience bi ñu soxla mooy koo xam ne mos na gérer dara ci état mais Diomaye aussi quoi qu'on puisse est-ce que mos na gérer dara ci état ba ñu mën a ko tuddee homme d'état est-ce que du jox raison li li li ñoom wax euh, yenn candidats yi. comme comme kan. Idrissa Seck bi nga bi nga bokkoon xam nga ko. am na expérience politique ñoom ñoom non expérience politique man dama lay expliquer expérience politique am ko du noonu. gis nga tu peux faire de la poli de la politique pendant cinquante ans mhm. la politique du ay la. est-ce dégg gis nga tu peux être un beau parleur. Mm-hmm. fekk xamoo dara ci politique. Macky Sall dañ ne c'est un ingénieur en politique c'est faux c'est un ingénieur de la force maanaam moom lépp doole la koy defee. mais nangul ko ni am mën na politique. mënul politique il a juste le pouvoir et l'argent mënul politique xam nga fi Sénégal soo amee xaalis ah. Mm-hmm. dañuy jàpp ne yow xam-xam moo la may xaalis te sàcc mën na la ko may agressé mën na la ko may rey mën na la ko may. déglu mu baax lu ma expliqué. Mhm. France état français les premiers milliards yu mu am. Mhm. c'était des tueurs à gages ñoo ñëw jox ko état bi. <laughs> est-ce que dégg baax lu ma expliqué histoire la quoi. Mhm. am alal taxut am xam-xam. mën a wax bu neex taxut am xam-xam exemple bu ndaw laa lay jox. ku mel ni Macky am na pouvoir am na caisse noire am na alal. mais amul xam-xamu politique Macky su amoon xam-xamu politique il n'allait pas créer maanaam cet cet esprit revanchard de la jeunesse parce que ba mu ñëwee dans la zone ouest africaine mhm. c'était le plus jeune président muy soog a toog mhm. te ñan ñoo ko gën a noonoo mooy la jeunesse pas que jeunesse sénégalaise mais même la jeunesse sous-régionale dañ ko noonoo kon amul xam-xam c'est vrai ci moom laa euh, tàmbalee politique ci moom laa mës nekk avant may créer sa mouvement. Mm-hmm. mais xam naa ci lu bëri loo xam ne ay handicap la ci moom jarul wax quoi mais c'est bien beau de sortir am la langue mielleuse et tout jël ay aaya traduit ko en français ñu ne la un beau discours fekk waxu yàlla nga jël pour la plupart. Mm-hmm. mais du dara man je sais bien les manquements de Idriss Seck xam naa ko baax parce que j'ai son conseiller. Mm-hmm. jëf na yu bëri yoo xam ne man maa tax mucc na cu bëri yoo xam ne man maa tax te lool moom suñ toogoon du ko weddi te am na ñu ma wër ñoo xam ne ba léegi ñu ngi ci wetam ak ñenn ñu génn xam nañ li may wax quand tu es un politique da ngay nangoo ñu lay xelal da ngay nangoo ñu lay dicter parce que vision bi ngay gis gisoo ko El Hadj Diouf Sadio mën nañ nekk ci terrain mais li Aliou Cissé di gis pour ñu mën a changer de camp et de position mm. ñoom duñ ko gis mm-hmm. parce que match moo koy laaj te marché politique bi fu mu toll nii Sénégal laajatul ku mel ni Idriss Seck laajatul ku mel ni Abdoul mbay laajatul ku mel ni Boubacar Camara bi nga tudd parce que temps bi daf leen daf leen raw. justement ñoom ci opposition bi la ñu bokk ba di critiquer un candidat de l' opposition. déggoo li ma la wax man damay dajale les déchets de l' opposition et les déchets du parti au pouvoir teg ko man nekkuma ci ay ne dañoo far fii que dama far fii que dama non non man sama logique laa nekk ba léegi. Mm-hmm. je suis li ma gëm laay wax. Mm-hmm. tollu ma ci ay. nekkuma ci ay neexal li ma gëm laay wax et je le dis de façon spontanée dama ne la temps bi da leen dab gis nga politique Sénégal nu muy doxee nii hmm. Khalifa Sall àndanu ko Idriss Seck àndanu ko Boubacar Camara àndanu ko Cheikh Tidiane bi àndanu ko. pourquoi nga ne ñoom àndanuñ ko tey ñu nekk ay sénégalais comme Bassirou Diomaye Faye ëpp expérience politique ci état Bassirou Diomaye Faye nga ne ñoom àndanuñ ko. lenn kese la ñu ëppalee expérience mooy mooy maanaam l' expérience de des choses qui n'arrangent pas le Sénégal à s'enrichir sur le dos des Sénégalais ñu ngi fi lii ñëpp nii. est-ce que ni lépp nekkoon nekkoon campagne bi def politique ba ma expliqué la ay candidats pour euh, ba ba ma expliqué la ñu ngi mhm. ah, nekk am nga sa daraja mais ñeew ma ci kenn man sérieusement te xam naa tam Bassirou Diomaye tam ñeewu leen. Mhm. expérience de quoi de toujours rester là à être vieux. expérience d'ignorer ses petits-enfants de d'ignorer sa famille au détriment de quoi toog ci nguur di am ay motards di am ay privilèges di am ay tour mm-hmm. gars yi nañu dem noppalu nañu dem wuti wiir de jël ko nañu dem jaamu yàlla nañu dem jàngi alxuraan. Mm-hmm. te bàyyi ndaw yi diriger. loolu mooy yoon fa la Sénégal toll instant bi nii soo gisee ñu wax ay xale yi dañu réew dañu fekk du réew de xamul tax mm-hmm. ay nit yu bokkul monde ñoo daje. te nit yu bokkul monde yooyu noonu jeunesse bi ñoo ci ëpp. maanaam mooy que suñu xoolee démocratie mooy que ñoom par pare nañu nañ nañu may ñu diriger dëkk bi mel maintenant nag faagaagal dina am waxante lu ñaaw dina am mënul ñàkk hmm. parce que sooy xool Sénégal fii mag yi mag yi bokk ci système bi ñoo gën a mën xas ndaw yi parce que ñoom su ñu toogee télé dañuy am droit wu ne ay dañoo réew dañoo inexpérimenté dañoo xamante dañoo radical ok ñun ndaw yi munuñu wax dëgg bi parce que soo waxee dëgg bi comme ndaw nga nañ ne ah nga réew on est pris maintenant nag on les appelle sur des débats d'argument pas ay débat de physique pas ay débat d'expérience man Sénégal kilifa politique boo gis ci système bi mën naa la wax ci moom mais du ma ko def parce que jaraluñ ma ko mais li am solo ba am solo mooy xamal sénégalais ne ñii fi nekk nii te yàgg fi amuñ jot ñoom xamal ñoom ñoom fan nga xam ne ñoom seen échec bu ñu xam fan la nekk mm-hmm. ñoom dund nañ ci état ñii nekk nañ ay ministre ñii nekk nañ ay directeur ba léegi ah, amuñu sax xelu te loolu moo tax ñu toog fii di insister ba léegi amuñu sax xelu créer benn politique de retraite mm-hmm. ah boo xam ne âge bu ñu toll nii ça devait les sauver ça devait les honorer mm-hmm. léegi la moo ci des di sotle Macky Sall di sotle ay Amadou Ba loolu moo leen dese. d'accord tantôt yaa ngi koy wax sa biir wax nii am na ñu bokk ci biir ku jég politique yi euh, bëgguñu système bu jige fii. ñu gis Bougane Gueye Dany yàgg nañ ko taxé koo xam ne dafa bokk ci système bi ba léegi choisirul candidat mutisme boobu mu yor le leader du mouvement gëm sa bopp nan nga koy jàngate bon Bougane dafa yàgg woote boppam anti système oli lieu de système mhm. euh, li ma jàpp ci Bougane mooy pour man mi ngi ci anti système bi pourquoi ma wax ko parce que seetaan naa ko benn jour euh, Walfadjri mhm. euh, ñu posé ko la question